Kayar bi ci tund jëndeer bi ñoo ngi leen fi nuyoo man El Hadj Ndoye di seen xarit di seen mbokk di seen doomu ndey saay su ma waxee xam naa xam naa ni di ngeen xam li tax man ma wax waaye tey nag ñoo ngi fii ci Kayar ci studio bu mag bi ñëw fas yéene fee def ak yéen làmb émission bu am solo boo xamante ni si ku ne gis na xew-xew yi làmb yi nga xamante ni moo am temps yi ñuy profité di nuyoo di nuyu suñu DG Abo Gueye ak ñi nga xamante ni ñoo nekk moom ci technique bi yépp ñoo ngi leen di bëggee di leen ziar bu baax a baax di nuyu tamit waa tund jandeer di nuyu waa région de Thiès di nuyu tamit waa axlu làmb yépp axlu làmb Sénégal yépp ñoo ngi leen di nuyu di leen bëggee bu baax a baax di ñëw nag ci li nga xamante ni si ginnaaw bi ñu nuyoo di ñëw si xew-xew yi nga xamante ni moom moo fi jot a xew ndaxte yaakaar naa waa làmb fan yépp ñoo ngi doon dégg euh, ki nga xamante ni si moom mooy coach Bakary Bakary sa sa sa saaxo muy wax wax ju wax ju doy waar ci wàllu làmb ay vidéo ko ko le motif lu kenn xamul parce que man bokkoon naa ci ñi nga xamante ni si ñoom ñoo jëkkoon na weddi li nga xamante ni si moom mooy wax jooju ndax wax jooju teguwul ndax làmb ay jàmbaar rek ñoo fa nekk di liggéey di daan seen toole kon tey sax tey sénégalais bi bu fekkente ni si sax gis na benn défaut si moroomu sénégalais bi war na ko mën a lëm nëbbal au lieu de que mu di ko teg si ay réseaux sociaux di ko wilipande te loolu man dama taxawoon ni musul am te euh, coach Bakary Sa Sakho ñoo ngi wax ak yow di la di la interpellé directement di la wax ni la gis nga Sénégal dañ ko defar démb te yow si ñuy juddu tey si nga bokk mënoo yàq Sénégal làmb tamit image làmb dañ ko defar démb te yow ñi mujjee juddu si Sénégal si nga bokk kon mënoo yàq image u làmb suñ la xamee dem nga dem nga bitim réew doon fa def ay sport kenn xamu la bu buñ la xamee làmb moo tax ñu xam la ngay wax ci làmb di wax ci làmb di wax ci làmb ba gars yi commencé la découvrir nga ne non naa jóg pour yàq làmb làmb mënoo ko yàq tuuti nga ci yàq làmb ak yeneen genre yi nga xamante ni si ñoom ñoo mel ni yéen soo gisee nag ñuy waxee temps bi c'est-à-dire que ñun làmb mooy suñu sport ñun làmb rek la ñuy seetaan te képp ku koy yàq dañ taxaw pour défendre làmb kon coach Bakary ñoo ngi lay wax bu baax a baax nga xoolaat bu baax a baax li ngay def ndaxte yi ngay wax ni yëpp di ay tappale pour lan bëgg ay vie bëgg ay affaire yoo xamante ni si dalay am fu la amul ben njëriñ beneen bi tamit ñuy ñëwaat ci suñu suñu suñu frère boo xamante ni si ndaanaan la ci làmb muy ki nga xamante ni mooy aada nga xam ne réew la aada Fass champion na fa yewo fas ndaanaan yàgg na fa yewo fas mur yàgg na fa yewo ndax boo xoolee mbër yi nekk Sénégal ba si gox bi ñu dëkk muy suñu maam abdourahman njaay falam waa faase ko yoroon muy ràññee faas yàgg nañu ëmb mbër di ko andi muy sori kon yow tey bu la faas ëmbee andi la ba nga toll fi nga toll aada bëréwoog say moroom presque say làmb dafa gaaw ndax bi ma jëkkee dégg sa vidéo nga ni képp ku bëréwul man ak si ren bu déwénee doo bëre man fi laa lay bàyyi te loolu bi ma ko déggee dama jàpp ne ndaanaan nga ci làmb nga nekk mais làmb mënul ànd ak leneen ben amul ben métier boo xamante ne mën na ànd ak leneen lu dul métier bi ngay def ndaxte soo bëggee def benn métier ba pare bëgg boole di fréquenter leneen da koy yàq kon aada dañ lay wax ni la bàyyil milieu milieu bi nga topp nii du sa du sa du sa du sa domaine parce que sport mënul ànd ak bañ a nelaw mënul ànd ak bañ a récupérer te yow da nga da nga war di récupérer di tëdd normal di yeewu normal di déglu ay say waxu ñi nga xamante ne ñoom ñooy si ay coach ki la yor depuis bi ngay nek mbapat ba léegi kooku mu andi la tay fi nga toll kooku soo ko kan ngay kon adat xoolaatal bu baax a baax li ngay def ndaxte tey ñi nga départ ndooloon si làmb nga fi képp koo xamante ni sa maas la woon nga bokk ak moom euh, nga nga bokk ak moom plan de carrière bàyyi nga ko fi tay ñu ngi wax sa diggante ak ki nga xamante ni si moom mooy Lac de Guiers yu bari Liss Ndiago fu la fekk ni la waroo bëreeg ñooñu man nga bëreel nga dem bàyyi ko fi dem di bëree ci kaw kon xam nga ni kon làmb mën naa ni bi mu dooree ba léegi si yow kese lañ gis jagleel bi nga xamante ni si yow rek yaa ko fi am xëy na tamit fougue de jeunesse la affaire da xale mais làmb xale du ko def tey soo nekkee ci làmb ngay gañe ay millions war nga am beneen objectif lu dul di fréquenter ay baar loolu du yoon man dama koy ñaaw parce que ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a fréquenter ay bar du yow sportif du du du nekk ci bar sportif du du du du du du n'importe qui boo xamante fu ko nit bëgg gis gis ko fa loolu du yoon ada, ada delosil sa xel te nga dindi xelu xale bi boo amee jabar yor kër say say say waajur di dund war nga am beneen xalaat boo leen mën a teralee lu dul ngay fréquente ci milieu yoo xamante ni sa sa noon sax mën na fa nekk def la loo xamante ni si fa ngay jaaree kenn dutul wax kon foofu du sa place delosil sa xel nga déglu man pa bi nga xamante ni moom mooy sa coach pa dama koy ay interview am yu bari kooku ku la bëgg la def si adina war nga mana a xalaat pa bu baax a baax ñu bëri dañ yaakaar moom mooy sa papa te sa coach su la kon bu kon ada xoolaatal bu baax a baax li ngay def CNG tamit dañuy ñëw si ñoom parce que yaakaar naa président bi fi nekk moom moo ngi dem moom moo nekk président en sortant candidat yi bari nañ ku ci mel suñu papa Bekay mu ngi ci candidat yi ak ñeneen ak ñeneen. ñi nga xamante ne si ñoom ñoo tey ngànk li nga xamante ne si ñoom ñooy CNG dañ leen di jaajëfal di leen wax gàcce ngàllaama parce que li ñu waroon a def si làmb yëpp def nañ ko mais olof day faral di wax ni ku dul tukki doo xam fu dëkk neexee te dañu bëgg changement bëgg bëgg bëgg loo xamante ne si beneen CNG boo xamante ni ki nga xamante ne si moom moo fii nekk euh, dina dina dina mën a yor sport bi nga xamante ne si moom mooy làmb parce que man damay gis à tout moment ci làmb. bala ñuy génn benn benn règlement discipline si biir làmb dara dafa am kon keroog kaawu Ada bi Ada ñëw na ci esat war a bëre guy gi jël temps jël temps jël temps jël temps boo xamante ni ci képp kuy nit nitu làmb ci stade bi wàcce nga pour dem si ki nga xamante ni ci moom mooy Ada pour wax ak moom Ada tamit nekk si ay gàllaajam parce que mbëru réew la comme ni ma koy waxee rek mbëru réew la mbër la boo xamante ni ci ñi koy ëmb di ko indi moo yaatu ginnaaw gee yaatu kon tey su amee bis bu toll ni adversaire bu toll ni guy gi day jar moom mu def li nga xamante ne moom lañ ko sant lépp bu paree ñëw doog a bëreeg moom mais keroog dama gis bi mu defee loolu ba pare sa suba nga ñu xëy andi ay sanction ci kawam maanaam règlement sport amul loolu règlement sport lii la am mooy année bi ñun ñëpp dañuy toog ñu waxtaanee li nga xamante ni si moom mooy li nga xamante ni képp ku def dara dañ la ciy daan bu fekkente ni si loolu defuñu ko ci année bi waa ji def na ko muy lu bees nañ ko marqué noté ko bàyyi ba année bi jeex ñu doo koo génnee mais loi kenn du ko dugal ci biir loo xamante ne si démarré na ba pare kon CNG tamit nañu xoolaat bu baax a baax a baax ba li ñuy def en plus que tamit mbër yi ku ci ne buñ laalee sa xaalis yaa ngi kaas mais tamit liñ leen di wax te règlement bi sport bi moom moo ko tënk nañ ci sukkandiku. na ñuy nekk si loolu ndaxte bu fekkente ne yow bu ñu laalee sa xaalis nga yëg ko kon li kon li ñu lay tere bàyyi ko loolu daal moom mooy li nga xamante ne si moom la ñuy wax si côté CNG.